waaw xam naa ñu ngi ak suñ beneen invité di Soxna Fandione moom it mu doon jàmbaar doon ku paseefu ci kuréel gi ndax gis nañ yenn taxawaay yi muy taxawoo ci bés bi xam naa dañ lay dañuy koy jox kàddu gi rek di ko laaj Soxna Fandione nan nga gisee bés bi ak ban soññee ngay defaat ci mbooloo mi. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim di sant di gërëm di sant di leen gërëm bu wér a wér di kontaan ci bis bi ndax ñun amuñu lu dul sëñ Tuubaa ndax ci lañ judd yaru ci màgg ci moo tax bis bi bu ñu ko tuddee lu ñu mën dañ ko ciy def te luñ ci def lu ne xeeb nañ ko ndax ñun seen Touba rek lañu bëgg sëñ Touba rek la ñuy nooyee ndax ñu romb ñëpp ñëw ba ci yow tudde la ko ñooñu am nañ cofeel ci yow am nañ cofeel ma di leen sant bu baax a baax a baax ñi yàgg koo teewe ay ati ati at di ko yàgg teewe sant naa ñëpp bàyyiwuma kenn kontaan naa ci bis bi lool yàlla nañ koy yàgg a def di ko yàgg teewe di bëgg ci ñëpp di bëgg ci sama doomu ndey ji ma gunge di kontaan ci moom fu ma jiitoo mu topp sama ginnaaw sant naa ñëpp. ci kuréel gi xanaa di leen soññi rek ñu gën a góorgóorlu ndax yoonu sëñ Touba moom gëm-gëm rek la ñu gën a góorgóorlu rek lii gën a yokk at mu jot mi gën mu jot gën a yokk mbooloo mi gën a weesu fii te am naa yaakaar ni ca kanam rek la jëm ndax sëñ Touba tànki kanam la am amul tànki ginnaaw di sant ñëpp. jërëjëf Serigne Touba tànki kanam la moomul tànki ginnaaw xam naa dañuy bàyyi soxna Fandione rek mu dugg si biir ñu dalal ko en attendant ñu jëlaat suñ beneen invité incha allah.